bismillahi rahmaani rahim ñu leen a dalal ci daara ji daara ji seen péncum daara ji pénc bi ñuy waxtaanee suñ biir di laayante biir di xalaat ci suñ biir di seet luy suñ gàllankoor yan mooy li soxal lan mooy li ay di jàmbat yii mooy li soxal daara ji parce que dañ gëm ne fu ñu toogee waxtaan laayante biir bunta dina génn bunta dina feeñ dinañ ci mun a jëfandikoo surtout jamono bi la nga xam ne suñu réew de Gambia jógee ci lim jógee tollu fi mu toll nii di defar matuwaayam di takk ndigam pour suxili boppam jëm towards nation building national development lii nag ki nekk ci bopp bi di président réew mi His Excellency président Adama baro jiite réew mi ci lii ñu ne nag juróomi at yiñ dig yiñ nekk ni le lan mooy liñ ci war a taamu lan mooy li war a liñ ci war a tënka lan mooy li nga xam ne moo ñu war a soxal lan mooy ci li jàmpat li jàmpa ak fiñ war Eh, eh, def suñ kattan nga xamne di ci juróomi at yi dinañ ko ci mëna jël jéego yu jéego yu am doole mëna def mën ci def liñ ci wara a def ba nga xamne dina defal réew mi développement mëna door di jog li nak moy waxtani daara ji toujours ñu né nak tay mom ñu dalal gan gu mag di esa bokarsi esa nak ah doomi réew mi la jarul introduction ku ne ku ku ku dégg turam xam dega nako wala gis nako wala xam nako dirma Esa ñu lay ñu nan bismillah ci dara ji Esa fi mu nekk nii PRO di OIC Organization of Islamic Conference ah, ah, agency bi nga xamne mo amé mbiri dalal gani, ci pinch mu reuy biñ fi wara def next year inshallah allah di dalal. jullit yëpp ci réew ci àddina si pour ñu ñëw pencoo fii esa nag ci bopp euh, daara jooju fa la fa la nekk di liggéey as de PRO instant nag ci ci struggle bi jéego yu rëy la ci def nekkoon Amérique di xeexal boppam esa nekkoon na fi it ambassadeur kon nit ku ñu war a wax excellence la kon nak instant ñu lay dalal ci pencum dara ji dara ji comme niñ ko waxee rek mbiri layante bir la waxtaan suñ bir a dara ji instant ngi ni sen gana a ngi ni kon nak almami ñu dalal bu jere jef euh ci sa wax ak dalal suñ gan ndax ponkal su la set ci euh baax na rek nga woné ko Euh, wane sa cofeel euh, ak euh, gàcce ngalaama bi ñu ko amal réew mi yëpp amal ko ko ñëpp amal ko njukkal defe naa ne suñu waxtaan tey lii diaspora bi yëngu ci affaire yu struggle di Gambia ak ni ñu continuer di ànd ak réew mi pour rek comme ni ko honorable Sirif waxee pour suñu réew dem kanam euh, baax na torop pour euh, daara ji euh, su jamono demee ba ci kanam ñu am ay gan yu mel nii nga xam ne ñoom liñ dunda li ñoo gestu ak liñ éene réew mi ñu boole ko ci suñ waxtaan tamit ñu xam ne dëgg la démb weesu na waaye lu jara bàyyi xel la lu jara gestu la Eh, ndax eh, so xamee fi nga jógee eh, mun am fi dem du la hmm. so kon ñu ngi dalal suñ gan gu mag Essa Boucar Sy doomi Kuntaya ku nekk Gambie fan moy Kuntaya hmm. xam na ne dëkk bu màgg la ci Gambie fii hmm. dëkki sëriñ la dëkki buur la loolu tax ba ñun am nañ ne tey suñ waxtaan Euh, yu bari dina si seet yu bari mm-hmm. dina si feeñ euh, yaakaar nañ ne daal te daara ji moom am na gan gu mag waaw jërëjëf almaami Lamine eh, di ko wax bisimilah di ko jox wàccuwaayam di ko wax ne ko ñëw na kiram ñëw na ci ay mbokkaam ñëw na ci ay dëkkandooram ñëw na ci am ay ñoo xam ne ñii xam na leen ñii xamuñ leen waaye tey dinay xamante ku ko déggut xam nga ko yëngu na ci ay yëngu yoo xam ne bind na taalif na ci fa réew ma nekkoon ci ay jafe mhm. ci ay yëngu-yëngu demoon na ba keroog bi nga xamee ne sax hélicoptère bi mu ngi ñëw ci réew mi ci ñi mujjee dégga di leeral ci la bokka parce que man dama ko daan suivre bu baax dama ko daan déglu déglu mhm. so ma xam bu ñëwee tok fi pour ñuy waxtaan demba di waxtaan tay naka la mel demba ak ñom niñ ko xeexee ak tay ak diaspora bi am na ñu doon wax am na ñu noppi mhm. ndax dañ gis ne mu ngi dox rew ma ngi dox ñu ne tek am dañ doon yëngu rek for the sake of yëngu ne na dañ bëggoon Yaya Jammeh dem su Yaya Jammeh demee ñu noppi. ba pare ñu jeexal ci waaw. bari na ci ñu bari ñoo xam ne dañ doon yëngu waaye am na ñuy continuer ba léegi. Mhm. struggle bi. Mhm. di wax réew mi fan la tollu. Mhm. di wax nit ñi fan lañ tollu. parce que ñi nekk ci biti ñooy gën a xam ñi nekk ci biir. gannaaw nag yéen yéen a doon yëngu amee àlluwa yi di xoos ba pare sëriñ bi binda taalibe yi di tari ñu emale fii rek. jox la nga xam suñ demee xuus ba ci digga waaw ci waxtaan bi gën a dina gën a neex jërëjëf jërëjëf man mii ci <coughs> ku daan faral di déglu ñaari radio moom duma ko daan mboote mukk Essa Bokar si ak Fatou ak Fatou Camara toujours at yi nekk nii yëpp ci toggul bi yëpp daf ma daan jaral toujours maa ngi déglu ñaari radio Charles ñu dalal suñ gan sari ca Bokar si waaye by extension waa diaspora bi yëpp waaw euh, ñu ngi woon ci yëf te yaakaar naa ne dafa war a continuer suma message man ci loolu mooy luy jubal ci ñoom ñëpp mhm. mais comme li mu wax léegi disengagement warut am dañ war a continuer liggéey bi mu ngi soog a door mhm. te ku génn dëkk bi mun naa ni ah rëcc na xaaral ma dem toog rek ci suma Amérique wala Europe ah, lijjanti suma bopp ak suma famille mhm. waaye nga gestu dëkk bi bokk ci liggéey ak été e ak mouvement yi nga xam ne moo indi change mhm. wonee na ne doomi suuf si nga mooy son of the soil doomi suuf si dëgga ñooy ëlbatiku gestu pour taxawal seen oh, dëkk léegi dama foog ne diaspora bi dañ war a gën a ci loolu am na ci ñu ma ci daan waxtaanal de ma ne leen léegi la liggéey bi door ñëw leen together des ressources bu bari ci biti mhm. ñëpp mënuñoo ñëw waaye même ñu ngi busy fële tuuti time bi nga ko dédicaté ci yu bare mhm. ñëpp séeroo issue yu bare ñu cee mhm. waxtaan mhm. di ci wéccee xalaat di ci développe ay ay ay di ko dugal si ci réew mi waaw dina am njëriñ trop ci jërëjëf Thial jërëjëf te lii sax day ah, luñ war a seede la ne waa diaspora bi ñu ci bari ci yëngatu yooyu lañ nekk dafa nekk ne rek baatin bee ceeñ fi mu nekk nii ca lañ doon yëngatu loolu weesoo nañ ko léegi léegi sumba nañ liggéey bu ees di nga gis ne doomi réew bi ñu bëri ñi nga xam ne toogoon nañ ñu ngay si del si di seet lan lañ mun a def di jokkoolante ak Gambiens ñi nga xam ne ñu ngi fi man mun naa seede loolu parce que ay daje naa cee ñu bëri waxtaan naa cee ñu bëri ñi nga xam ne defoon naa leen a itam ne ñi nga xam ne ñëpp koo ci xam ne daan naa la déglu o daan naa dégg sa wér daan naa yëngatu boo ñëwee bu ma la njëkkee gis foog ma jox la loxo ne la jaajëfal la ci sa liggéey bu réy bi nga liggéey ci réew mi génne ko ci mbuumu noteel kon nag ah gan gu mag googu la nga am waaye nag esa ñuy wax toujours daara ji nag mooy lii dugga ci juróomi at yu eesile lan nga bugg a tënkat muy sa perspective from the diaspora sa perspective ci doomi réew sa perspective si ne yaa ci réew mi léegi di liggéey naka nga jàngatee juróomi at yi lan mooy rebuilding lan moy nation building lan moy priority fi mu nekk nii. alhamdulilah uh, Mr Gomez jërëjëf your odon suma comrade Almami Tal, ci office bi non lañuy toñante tooñante Mr Gay, jawale na la suma xarit docteur ku active ku ñu daan fekk France ñu anda be jep ku mëna a liggéey la. Jeff, Mr Jai, Mr Potin Mr Potin sorry. Sangka ma ngi koy wax ne dama dan dega sa tur ma da ngay dega suma tur <laughs> No dinaa ci <laughs> eh, lu baax lay dega sa tur waaw am xam nga li ñu war a wax rek mooy li ma njëkkee xam nga lu gis-gis dafa am important ci lu xam nga gis-gis li English di wane gis-gis dafa relative ma mhm. léeg-léeg dara mun nay ñaaw te baax waaye dara mun nay rafet te bon waaw gis-gis bi na noon la demee euh, léeg-léeg nga euh, mun naa joxe story of the old epics of Mali <coughs> yaayi Sunjata Keita sogolon si gis nit xemem ko bugga ko jigéen joo xam ne la kenn du ko àttee rafet mhm. waaye nag lu rafet juddu na ci moom waaye lu rafet lu juddu woon ci moom it du doon dox kon itam ci gis-gis ba léegi mën nañ ko ci waxin ku yàlla nattoo cër mhm. yaay ji yàlla nattoo ko cër mu doon xojo gonne doom bi yàlla nattoo ko cër munut a dox moo di Sunjaata Keeta waaye pas-pas matal gis-gis mu doon buur bu mag mujjee contrôle Mali soo ñooñu mun nga fay dériver pas-pas mhm. kon dinga gis ni ñun li ñu distop in Africa dafa bari parce que bi ñu amee slavery mu wiccaxu indil ñu colonialisme mhm. colonialisme wiccaxu indil ñu néocolonialisme man balaa may dooree sax démbi Gambie ci 1994 damay dellu gannaaw. Mhm. parce que itam euh, colonialisme euh, doon na loo xam ne fim ñu wàccee ku nasax ku gëléem lañ xam nga suñ la jëlee wàccee la nga nasax gëlem. Mhm. kon ngeen ngay loru. ñu jogati ci loolu nag ñu indi ñu ci ba léegi li ma daan wax nit ñi la ci euh, biñ daan wax jamono xeex bi diggante Gambia ak nooteel ne daaw bi ma fi ñëwee ma delluwaat dañ amoon benn programme buñ doon am ci victime center dama am lu ma fa waxoon victime center mooy fii ci ci eh, ma ne leen ne nag yaayaa jame ñaar la pour man yaaya jàmme nit ka soldaar ba xarit ba dafa ute ak yaaya jàmme institution te loolu leaders yi yépp a ci em nag mu ki fi toog léegi mu di Sir Dawda mu di Adama Barrow mu di yaaya jàmme ñaari nit lañ man su may jëflanteeg nit ku nekk State House mhm. noonu laa lay gisee moo tax soo ko bàyyee xel lu ma ko xamoon xamoon am na yoo xam ne duma fa daan àgg ci wàlli personnalité nit ki dafa am line boo draw waaye institution ba nag ku ko nekk mhm. ma delluwaat baak ci taay ni colonisme ma tubaab bi ba léegi rek xam nga fii euh, programme bi si boppam dafa am doole trop bu ma ko gisee daf ma neex parce que euh, lu bari ñu ngi foog ne tubaab bee ñu ko won déedéet ñun ñu ngi ci diggante ñaar yi dara ji ak aada bi mhm. soo lel takan tàkkaan nga bolé ca dem ta jar da jàng xam sa borom mhm. lu tuba fekk ci yow ji yow rek la cay sax moy fam ko ji wa lol deug la waaw kon nak jikko yoyu dañ ko wara sam mhm. ne bala moy sori du warate way aduna mo da xawarate xam nga ñun ñi woyo julit fi Gambia julliti suñ jàppee be pare pour wara julli rek waron na doy commission of inquiry waron nay don accountability waron nay don audit ak yep parce que dañoy julli be pare nga dégg ñu ne Allahumma aji min at aji alni min mutatahhirin aji min ibadika salihin fuñ ci dajji ci aya bi rek yalla ñu yalla balal ñun duñ ay arab nga boole ma ci ñi tuub boole ma ci ñu set boole ma ci ñi jëf-jëf ju baax mhm. loolu rek waro nay doon commission of inquiry do dëgg la waaw kon nak demba bi nga wax li taxone ñuy xex li ma mosoon a wax la ci ben programme ñaar amna yomba bi amna weñ bi am na dinaa tasaare lu ma fa jublu su fekke da nga def lu bon mu di dem àlla weñi loolu la ñoy wër kol kon kol dem Allah fu weñ am ñoo ñoo ñoy ñi la ŋàñña ndik dañ la bugg a te bugguñ la bugguñ la à tool waaye yomba bi am yomba bi moy kan moy di constructive critique parce que la laalee lis koloñ yomba daf lay toppa li tax mo lay toppa moom nekta flower bu xeeñ lay ut pour muñ cay defar lem mhm. kon jikko yoy itam nako nit ni baye xel ci rew mi fi ne nag ah, ku mus a wàcc di nga mus a éeg waaw loolu lu am solo la waaw honorable excellence ah, waxtaan bi ni dooree nii ah, dal na xel bu baax yaa ngi wax ci baatin yaa ngi wax di tiba ci alxuraan ci zaahir tam waaw ñun réew mi fu mu nekk liñ gën a soxla mooy boroom xam-xam yoo xam ne dañ ragal yàlla liggéeyal seen réew ngir yàlla ngir seen réew euh, diaspora bi comme ñu euh, ni ko Charles waxee ni ko honorable waxee ak niko ko Lams waxee réew mi yëpp ñoo leen amal njukkal euh, def nañ seen contribution ba mat sëkk mhm. waaye fu mu nekk dañ tollu jamono joo xam ne mhm. laajte def dee am yow Essa Bouker Sy si loo nekkoon lan nga doon defal réew mi Euh, yaa ngi wax affaire yi accountability mhm. euh, foo dem rek euh, ñu ne la ana Sirif Gomez lan la fi def mhm. Charles Putin fu mu nekkoon mhm. liggéey bi ñu face fu nekk nii liggéey bi nekk suñ kanam bari na bari boo xam ne ku ci mun a am ndam réew mi yëpp nga amal ndam ku ci mun a def dara dangaa dimbale sa askan dangaa dimbale sa jamono. man foog naa ne euh, baax na torop euh, ñi nga xam ne ñoom la yàlla baaxee ñu jiitu ndax sax ñu taana leen ñu jiital ñu euh, war nañ di delloo seen xel ci ñaari affaire liggéey biñ sumba nii diir bu gàtt la honorable daf ko dee wax five years yan jikko lañ soxla ban façon yi xam-xam ak naka la xam-xam googu euh, mun a yaatalee suñ euh, dunduwaay mun a yóbbu euh, suñ réew ci kanam waa yow ñun dañ la gisee ne yow yaa ngi represent diaspora bi mm-hmm. te diaspora foo ko gis ci àddina si ñi gën a baax ci réew mi mm-hmm. dëgg la léegi am nañ baak wee bi la ak yooyu la yëpp mm-hmm. waaye ku jóg sa réew dem beneen réew tekki fa kooku kooku du cuune kooku nu ku na sax ba teki tekkiwuloo rek wayangi gestu mhm. fi nga di dimbale di def alal di hamham def sa ham xam di si def sa mun-mun mhm. dama bëggoon rek pour ci mhm. euh, ubbi waxtaan bi yow diaspora bi naka ngeen gisee Gambia fu mu nekk nii génn na ci ay euh, naka la ñoo mun a suñ ak suñ gom-gom pour yóbbu Gambia ci kanam. jërëjëf almaam yi loolu eh, leeral yu am solo la. Mhm. mooy comme ni ma ko tenki woon ci kanam rek. lan mooy yi nga xam ne mooy fim fi mhm. ak naka lañ ci wari a duggee. waaw jërëjëf xam nga diaspora bi ci bopam am naa soo suma yenn vidéo yi sax am na lu ma ci musona a wax ma ne man duma diasporan waaye dafa am lu taxoon ma wax ko nag du hmm. fii li ngay wax nii hmm. loolu dinaa ko nangu parce que am na jamono dama daan dégg ñu ne diaspora bi is the eighth division nga theory yeeg suggestion yi yëpp dafa bari waaw waaye loolu loolu président bi sax ba nga ko waxal moom waaw nangu na ne bi fi mu nekk mooy di eight region region dëgg waaw so boobu noonu nag ma ne su dee di foofa xëj na mën nay nangu man parce que boobu boole na ma ci waaw waaye am na jamono surtout jamono nguur gi fi nekkoon mhm. diaspora dafa amoon benn connotation boo xam ne moom la àndaloon waaw mhm. dafa mel ni diaspora nkool wala waa diaspora bi luñ bugg a wax luñ luñ nañ ñu baalal it's like diaspora was an alien mhm. ci réewam fekka loolu warta am parce que tam Gambia bokk na ci ñeneenteeli réew daanaka yu gën a jàng ci africain yi si biti xam nga capacité bi moom ñàkkul mm. jàng bi ñàkkul waaw kon mu ngi fi léegi doomi réew moo xam ne tekki na ci xam-xam tekki na ci koom-koom tekki na ci jikko kooku du kuñ war a falax nag yaakaar naa kooku su fekkee ne muusaa nge ñeel nañu laa wax de dañuy def sala suñ digante ak borom su buggee ñew ñew su buggee tok tok su dem dem né so su fekkee né ñu bari da ngay dégg ñu né ñu nga fofa rek di wax wa way dañu warona del ci liggéey réew ñoñu duñ ma daan merlo lima len tontu moy am ko fi né di wax gor soko ko buggee toxal du yëkkati wëlisam ne ko ne demal dafa am lo koy wax gor to xol bay toxu way du jébba ci am na ku toxu dem la ko toxal du dañ koy téye ko sax way suñ toroxalee Mr Gay sa kanam nga xam Mr Gay du ko bon nga ragal ne li wara toroxal Mr Gay nga man génnuma ko su yegsee ci man toroxal lolu mo bàyyi ñen ñi ci biti diaspora bi euh, am na fu ñu shared nekk xam nga strategic fighting dafa uute ak emotionally charged fighting parce que dama bari di code ñooñu ku si ne rek am na ku la saf adduna moo demee noonu <laughs> dafa am strategic fighters yu fi nekkoon ñoo ñoo fi génnoon colonialiste Amilcar Cabral ak euh, Patrice Emery Lumumba ak ki Samora marcel ak nga ñun ñu lañ xam ak ñoom Nelson ba Mandela ñu jaar nañ ci situation yo xam dañ graw nak nak xam nga dañ shift from ñooñu new onda neo colonial government legi tam ci bir neo colonial government nga am tyranny lima ma advice suma na brothers itam moyne. ne ah, xex ak dara xeexu la ak nit ya nga ak te léegoo-léeg tam government nekk in a system soo di nga gis ne yooyu yëpp lu ñu war a toogaat da léegoo-léeg sax nga gis ki ngay xeexat ci boppam ki nga yaakaar ne moom ngay xeexat mu ngay jàmbat na ko système ba loree te fekk kooku nga foog ne sax yow kooku moo la jiite ah, lay lor man kay dama foog ne loolu nga doon junja sax ba nga waxee ne mhm. eh, amul ndim ñi fi nekkoon ak dem ne ki fi nekkoon jëmaam ak système bi mu fi bàyyi woon waa bi liif ne na xaj na junja bi mooy ne mhm. waa jooju dem na waaye système yi mu fi bàyyi mu fi kon nag ci luñ war a witu la waaw mhm. ci programme mhm. parce sa wax ji gis naa ci eh, ci yoon bi ne am na ñu bon ñu nekk ci boor bi di jagal ñële di yàq su fukki nit di gas fukki nit di suul ci ci ci ci réew mi ci diaspora bi am na leneen lu fa nekk am na ñoo xam ne dañ believe ne sax suñu waxee ne ma nañ génnee Yaya Jammeh keneen kii toog daf leen war a jox place suñ leen joxut place nguur googu kenn baaxul ñoom noonu lañ koo gisee door di wax négatif fekk yow xeex ba xeexuloo woon pour Yaya Jammeh dem da nga xeex pour su demee mhm. ñu seet fuñ laa taba suñ la tabut mer ñëw na den xol xol bu bon ñëw na di yaaxa amin ñun suñ jikko yee wecceekuwul mm-hmm. ca jamono jawara ba léegi yaa ngi wax independent waaye boobu ceremonial independent la woon mm-hmm. ceremonial independent jeex nga am force and mm-hmm. eh, second republic foofu la réew mi ceeñi ca la nit ñi door di wane jikko ci doon ñi di nit ñi door di wane seen true colors ci la ci nga door di xam ñan ñooy doomi réew mi mm-hmm. ba ñi fi nekk ak ñi ci biti gis nga soo bala ma rek soo seetee golo mm-hmm. am nga ñoom ñëpp siti sin lañ mm-hmm. seen maam yëpp golo lañ santa am nga ñun nit santa ne njaay nduur seeka yi waaye golo yëpp golo lañ tuddaan waaye lan moo tax ñu leen day jàmm seen jikko yi jikko yaa bon waaye golo daf day delloo njukkal ci ki ko yar saa yum duggee ci kër <laughs> soo ñun nit ñun nit dañ day fàtte pour delloo njukkal. foofu laa bëgg a isiwaat. waaye man kay laaj bi ma doon jëma ici pour eh, ci Charles mooy ne rek am na luñ fi lu fi jaar léegi nii. waaw soo gisee man soo gisee mooy mbiri jikko. waaw may wax. nii parce que dafa am lu nekk ci réew mi. Mhm. ma bëgg a koo pour moom. pour junja waaw man kay am na nga xam ne fii jikko yi. Mhm. mooy lan lay am. su lii jeexee. waaw man kay ci mhm. jikko boobu laa bëggoon a jël di wone ne Charles di jë di jokkalante waat rek ak li Essa junjoon noonu comme mbiri système bu ceeñoot mhm. ci mbiri jikko gis nañ fi ne time yi Yaya Jammeh corruption was rampant amul lii amul lale amul diil bu dugub mhm. gis ne yu mel noonu ngay jóg xaj na sax amul xaj na mënuñ a génnee dara te teewal ko ci teebul ne lii moo xapoon waye ciow la ngi bari muy ci mbiri oil ciow li bari na ci mbiri Semlex ciow li bari na mbiri eh, eh, eh, Ports Authority ak nañ gene director general of Ports Authority ciow li bari na yini yep muy muy joxañaak mbiri junja mo taxone ma fogg na Charles five years yi ak tam ñu am ndey mbi la bi tok di commission jaane commission yi luñ wara a luñ wara jangat la lu war a wone ne ah fii kat buñ delloo waatee ci liñ nekkoon rek feeñal dina am coow dina am wax dina am Charles. am nga wax nañ fi li nga mhm. dafa am solo trop ci. lan moo mun a yóbbu réew mi kanam mhm. wala lan moo ko mun a teg ci lim nekk. mu continuer di nopp di yaaxu. Ah, li nga wax noonu. Mhm. lu am solo la ndi dama yaakaar ne ci 22 years yi attitude. bu yàggee mooy nekk euh, tradition mooy nekk culture mm-hmm. mu nekk a way of doing things mm-hmm. dama foog ne because of the sort of dictatorship bi ñu amoon systèmes yëpp yëpp a yàqu mm-hmm. te nguur gu es am na waaye dugaluñ dugalanguñ ay systèmes yu war a mun a dox because loolu moo mun a régler bu fekkee ne am na loo xam ne waaye nag caal jikko ya Oh, jikko yi mun ngaa am système bu bon waaye nag nit dafa war a am jikkoom boo xam ne moo ko moomal boppam jikko réew mooy institutional framework ak setups ak gars tous mhm. loolu tamit mu ngi manqué fi mu nekk ndik mhm. ci régime bi passé dafa sort of réeroon oo génnoon mhm. léegi dañ war a delloosi loolu ci liggéey nguur gu ees gi la te lu am solo la fii waaye li ko gën a underpin mooy li ñu doon waxtaan tam ci several programmes information telling the citizenry what is happening reporting it's not by choice it's a responsibility it's a critical component ci responsibility nguur gi ci citizenry bi la am bala moo am lii xew li ñoo xalaat waaw liñ decide ak ñu de dañ ko war a report nit ñi di xam mm-hmm. diaspora oo ñu fi ne ñu ñu fi ne mm-hmm. dañ war a xam liy dox ni nguur gi def fi ñoo gagné. Mm-hmm. fi ñoo daanoo. Mm-hmm. yëpp dañ ko war a xam dañ ko war a ripo. loolu loolu lu am solo almaa bi. almaa bi xam nga. dama bëgg a jeexal rek. waaw waaw waaw bala ñoo ñëw si bala ñoo ñëwaat si instant. man dama believe it's not just individual character attitude institutional. where we are failing. but léegi diaspora pour ñu mun a participer ñoom it's ne ah, am naa xaalis sax ma tabax yi kër Banjul. they need to be able to come tey am the diaspora you buy America fifty sixty thousand dollars la ñu if the packages are good and the opportunities are there. Mm-hmm. which is through what information. No, why? nag dama foog Lola, Lola la loolu la ah. declare bi ne. diaspora. mooy the eight region in the country. kooku kat amala tuuti leen dara. dafa des nag ci Gambien bi yow mi nga xam ne yaa nekk ci biti oo yaay nekk ci biir nga gis sa boppa waaye legi foog nga government foog nga foog ñu woonee ne eight region mooy ne waaw legi yakana ne ci constitution bi es dina diaspora bi vote. yaakaar naa ne ci constitution bi dina make sure ne diaspora bi dina am equal opportunity because wax mm-hmm. nañ ko fi su ñëwee fi réforme réforme réforme mm-hmm. bi ci service dafa mm-hmm. miin ne because man maa ngi toog ci place ten years te liggéeyuma dara because twenty two year culture rotten culture rubbish culture non non existent um, preferential based on merit and performance culture amul ci système bi minul ne man maa toog toog bu dégga su fekkee ne diaspora bi moo am qualification bi mhm. am compétence bi mhm. am desire bi paree ñëw liggéey mhm. jël saare bu ndaw boobu war naa am equal opportunity for that position waaw man we must convey that to the diaspora ndax ñoom ñu gën a sawar pour dugg si waat man kay dama ko doon gisee di other way round loo bokka war bul xaar ñu ne la lii ci nga bokka yaa war a gisal ne lii laa lii mooy suma yeleef lii mooy suma cër nga ñëw jëlal ko sa boppa oo laajal ko sa boppa waxal ko sa boppa almaami Charles junja na fi dara mbiri information ak communication gis nañ ci week bi the honorable minister of justice laaj nañ ko naaj yu am solo yii nii yëpp di junne ci loolu mm-hmm. lu tax lii lu tax lali non lii gisee wuñ ko nii mm-hmm. eh, eh, eh, jabari président bi naka lii mu ne noo loolu xamu si dara semlex naka lii mu ne yii mooy yi nga xam ne mooy li nga junja mooy li kii nii di junja almaan waaw waaw non waxtaan bi euh, foog rek ñu delloowaat euh, ko fiñ ko dooree ndax euh, diaspora bi dañ am ñaari cër benn mooy ne waa fii lañ waaye gàddaay nañ te soo tukkee ñaari affaire moo dee xew dañ dee jànga parce que di gis yeneen doxal yoo xam ne yow miinuloo ko te xëj na sax ñoo gën yow yi nga miin so danga dee mun a compare loolu nag su fekkee ne comparison bi baax na bu baax a baax dafa ñëw egga si fii ah, mu njëriñ askan wi fii parce que yéen mi nga xam ne dangeen dem foofu gis ne su fekkee ne affaire yi jàngale bi la affaire yi paj mi la affaire yi mbéy mi la yii yëpp gis ngeen ay modernisation yu ci xew am yu bëri yoo xam ne euh, mun ngeen ko transfer li ñoo wax technology transfer mm-hmm. yii yëpp xëj na ci man nag suma waxtaan yëpp euh, loolu laa di jéem a try pour euh, junja mm-hmm. pour rek nit ñi understand ne ku nekk mm-hmm. dafa am waar ci ci tool bi le an important na trop pour ñi jiitu ci affaire yi réew mi ñi amee système bi ñi amee gaal gi Euh, ñuy euh, oyofal mbir yi ba pare di euh, jëfandikoo xalaat yu rafet yi nga xam ne moom la doomi Gambien yi waaw especially mhm. diaspora bi mhm. parce que diaspora bi ñoom seen advantage mooy ne dem nañ dëkki feneen foo xam ne ñooñu ah soo seetee àddina si ni moo demee ñu bokk nañ si ñi si jiitu waaw waaw loolu solo so week bi passé tamit ñu ngi dégg ne teachers yi ñoom dañoo strike ñu ne ñoom duñ dem jàngale ji ndax am seen pay baaxul euh, ah, ci gannaaw gannaaw ñu ngi dégg ne xale yi seen jàngam yi amatul njëriñ mm-hmm. euh, yow as representative yi diaspora bi as as Gambien euh, dëkk nga ci yeneen réew si gàttal rek yow naka nga seete ñun Gambia fu mu nekk nii suñ affaire yi wér gu yaram mm-hmm. ci population bi yëpp fii bee koy mm-hmm. affaire yi jàng mi suñu dëkkuwaay yi affaire kaaraange yii yëpp euh, yoo xam ne la soxla réew mi la te soxla nañ ci tamit ay doxalin yu bees parce que système bi fi nekkoon euh, jaay doole la fi nekkee woon nit ñi ñu nekk ci ñiiroo ŋaaroo euh, ba pare politique bi fi nekkoon tamit noonu la meloon wax ji dafa bari waaw dégg la jikko yu bon yi ñu ngi ci waaye xam nga euh, soo demee ba nekk sëriñ daara mm-hmm. wala nga nekk borom kër mm-hmm. yow sa jikko moo gën a am solo euh, ñi nga xam ne ñu ngi doxantu ci mbedd mi mm-hmm. parce que yow da nga am responsibility comme ni ko Charlson waxee pour woon nit ñi ne euh, doxalin bi bii moo ci gën a sell bi moo ci gën li ma doon wax rek mooy ne comparative lens bi nga isi si suñ problème si yéen diaspora bi lu am solo la te waruñ di em si rek wax ko mhm. ne am na solo wala am na njëriñ dañ war a gis njëriñ bi mhm. dañ ko war a jëriñoo tamit euh, ma man kay ni ma ko doon tënkee sax almaa mi pour jël doolewaat ci Essa mooy ne rek yow Essa mhm. di doomi réew comme ni ko almaa mi junne dëkk nga ci biti lu yàgga ñu ngi ci juróomi at yi lan nga tënkat ne mooy di gën a jàmpa ak naka nga ko doon defaree waaw xam nga moo tax bu ma dooree ma doore woon fi ma dooree rek. Mhm. xam nga fii daf di réew moo xam ne benn magi mandinka moo koy wax mu ne banku ndim banku baa mu ne réew mu tuuti réew mu rëy. Mhm. mooy Gambia. Mhm. moo tax ma dooree xam nga fii. Eh, muy Gambia muy Sénégal dañ dee teel a oyoo diina moo tax suma wax yi lu si gën a bari. ku understand wul nga foog ne dana maa waaraate déedéet parce que dama leen di fekk fañ foog ne comfortable nañ fa waaw parce que foofu lu bëri lañ understand parce que itam gis nga Gambia dañ am benn problème Afrique am na ko waaye Gambia la gën a feeñ ci aada bi nag diggante aada beeg diina bi nag mhm. la ñu bëri di bugg a escape parce que da ngay dégg da ngay gis xam nga am na benn expert bu ne we encourage individual development but we don't encourage collective development te loolu dafay affect ku nekk ci position of power dafay affect borom puus-puus bi ci mbeddam ci naka parce que da ngay gis ku defar kër gu rafet ñu xam ne nang nga ko amee jaarut yoon tooñ nga luwa tooñ nga économie nga wëlbatekuwaat aada muur la aada ne ñii dañ añaan yaayam ko liggéey. Hmm. wala wala ñu tàccul la ci. waaw waaye man. ni ma ko eh, eh, eh. waaw ni ma ko daan waxee ci vidéo yi ma ne. ku sa liggéey ndey tekkee jëlloo moomu tabax ca sa étage man ñëwuma liggéey ndey boobu waaye loolu bari na de. waaw waaw moo tax nag xam nga ni. Euh, Eh, Fum neni, ne Mr Gomez xamna ne communicateur la mo may mo may wax lo te dina wax bu sobe yalla waaw dina wax parce que tam wax mo ñu fi indi. ne dara ji moom. waaw mom dara ji mom la laayante bir la rek. waaw dañuy la non non be pare is good parce que itam. Euh, waaw waaw xam nga nit ki tam su nit ni toge sen keri di la setan am yaakar ne dang leen a wax lu len di yok du lu len di wañi mm-hmm. kon tam nga gor am amna lu daan wax manelen ne man Isa Bokarr suma vidéo yi ñoo may atte mhm. du kenn mhm. suma vidéo ma ne the price of a revolutionary is revolution the price of a freedom fighter is freedom the price of a democrat is democracy man musumay xeex yaakaar compensation waaw loolu yàgg parce que itam uh, there is a difference between dispensation and compensation parce que réew capability moo koy yóbbu te réew bi ñàkkut capacity su government bi ñàkkee capacity kon nañ ko seet ci réew mi parce que réew mi am na ñu wan capable mm-hmm. soo di nga gis ne kon su fekkee ne yaa ngi si position yaa ngi def naka su noonu nga dégg ñu déggale la ne kii laalaate la waaye nag laalaate bi lu ko indi mu di ne kii waajoo xam ne la ku ko bootuwut gox bi doo fa gañe waaye man la ma li ma gëm man ci philosophically and then practically mooy popularité disturbut ma man production moo ma disturb parce que su fekkee ne am na foo xam ne liggéey mooy wane boppam liggéeyay yebaane boppam mhm. liggéey moo lay vote nga toog si sa power parce que itam loolu suñ ko defut parce que moo tax ma dooree fa ma dooree woon rek xam nga dañ ne ninety percent muslim mhm. nine percent christian one percent other religions yow waxtu boo jàppee ba nga juddoo ba léegi ñu jàngal na la allahumma aj'alni mina tawwabina aj'alni min mutatahhirin aj'alni min ibadika salihin su fekke gom nga yalla la wax jarul ni yóbbu commission of inquiry hisab nga sa boobu ba pare xam nga lolu suñ koy oyo nak fofa lañ wara a fajj jangoro yi ci bir jikko yi nak parce que waaw waaw waaw man bu yagul ni ma ngay deglu benn pastor Tudo Bismarck mm. mu ngay woné ni mm-hmm. nit bi ci individuel nit bi ci nit dañoo ñaanal suñu bopp dañoo ñaanal suñu dégg dañoo ñaanal suñu ko yàlla dinañu tegal yëpp waaye dafa am foo yàlla am mm-hmm. nit nit nit dooree foofu mm, jëlee foofu nit nag yaa la yàlla def waaw nga liggéey ci lu baax wala nga liggéey ko ci foofu mooy issue bi foofu mooy the crux of the real issue pour contribuer fii sax fan la nit ñi taxaw ci yàlla ak ci seen bopp ak seen communauté yàlla defal na la yëpp defal nañu de Gambie yàlla barkeel na ko ñëpp am nañ mm-hmm. réew mu yàlla barkeel waaye na nit ñi seen mandute seen uyu ci loolu surtout mandute seen njëriñoo lii mhm. tey maa ngi delluwaat ci diaspora bi issue bi ñu doon yëfi information mhm. nguur gi ma advice leen ci lii soo leen bañee diaspora bi réeroo yéen mhm. yégle leen non du diaspora bi yëpp réew mi yëpp dama dama dama spécifique let the information come out issue oil bi bring it out na nit ñi xam na Gambien si xam ndax gambien si ci mun a def dara mun a dugal si def ci dara ndig lu gambien am ci loolu gambien laa njëriñ waaw nag Charles waxtaan bi euh, ne ne non non rek dama dama dama bugg a boole si sa si sa wax rek mm-hmm. parce que su yéenay su ñoo wax affaire yi nguur mm-hmm. li dee xew mooy mm-hmm. dañ nee ne nguur mel ni benn la nguur nag dafa bëri ay bànqaas te banxaas yi ñu ngi nekk ci guy gi guy gi mooy réew mi dañoo jox dañ war a balansante dañu war a nemmewante cek cek seen bopp nangu naa loolu de waaye gis nga li xew bu yàggul waaw nguur gi toog rek ne kenn du tukkeeti ba weer bi ak bi jeex loolu mooy communication bi ngi laaj dañ laaj koo bi nga xam ne balaa la diaspora bi di misunderstand mhm. di la misinterpret mhm. diaspora bi dafa bëgg a xam bu xamee itam fi réew bi jublu mhm. ci laa gën a mun a defar boppam pour mun a dugg si def fi li fu war a def waaye ñu toogee di foogaatu rek yow nguur yi nga ne ñii daal ànd ñoo man te fekk li ko waral mooy réeroo moo am réeroo dina ubbi leen mbir yi mbir yi leer fi réew mi jublu leer ñi fi nekk xam ko ñi nekk ci biti xam ko liñ ci mun a def mun a dugg si. a dugg si waaye. Ah, meel ba meel Esa rek mu continue mu daal. waaye kaw mu ah, àndaal mu démarré. waaw parce que man mooy li ma laajte. ne comme man ci ni ma ko doon dégloo. ak ci réew mi ni mu tollu tey. moom laa bëgg a mu seet. because moom gis na ni meloon. Mhm. gis na ni meloon ba moo wax ñi koo déglu. te yu bari fi nekk boo demee ci YouTube bi farut mu ngi mm. mm-hmm. ak tey amagut ñaari at ci moom ci gis-gisam fanaa fanaa foofu laay xuus waaw fa laa tënk fa ne moom am na lu mu gisoon mm. mu metti ko ak diaspora bi ne dëgg dëgg man doomi réew mi laa ku dem Kunta ya xam Abu Kunta yar na fi ay nit bañ nekk ay directeur ñoo xam ne demoon nañ ba réer seen famille yi ñu jubantiwaat leen mhm. bon yow boo ñëwee pour jubbanti du ma jaaxal du ma jaaxal moo tax ma ne gisoon nga ni mel mhm. ba mu jaral la pour nga xeex pour réew mi mhm. waaye boobu am nañ ci ndam ñeneen ñi am nañ ci ndam waaye ñaar ñii di dem ñaari at yi di dem naka la lan la lan nga ci tënk yow lan nga ci gis parce que yow yee fi mu nekk nii ñi yële 22 bi. Mm-hmm. wax nga bem daw. Mm-hmm. ñaar ñi ñu fi waaye nit ñaa ngi doon di sixat mm-hmm. yu xooguñ waaye ñu ngi sixat siqat bi ak jooy ba moom lañ moom laa bëgg pour ci gàttal. ak si mais mu jox la parole. waaw waaw dëgg la gis nga dafa am lu important ci leadership. listening skills and impartiality. njiit da nga war di déglu. waaye nag ni ma ko daan waxee la ci suma vidéo yi bëgguma wax ak déglukat dama bëgg a wax ak déggakat déglukat nag du déggakat waaw soo di nga gis ne kon li nga wax lu am solo la soo leadership ci boppam fekk séparétuñ ko ak nit rek dañooy bugg di am problème leader dina am problème ñam liit dinañ am problème ba paré li Mr Putin di wax ci affaire yi diaspora bi na jokko bi xam nga man bi may door wax naa ne doomi réew moomu da nga wara def sala sa diganté amo bridge mm-hmm. waaw xam nga lolu moy limo wax waaw parce que ñun ñi nekk fofu li ni dañ daan wax ne ñoy gëna xam gambien ci la xew gambien tay, ma tay ma wax ma wax leen nak ne ca waxin nonu lañ fo waye man Isa musumay xam ci biir Gambia lu ma Gambien seenul email kon gënu may xam kooku Gambia. waaw gënu koy xam li fee xew. ña daan ànd ak ki fa nekkoon muy def lu bon ak lu baax ñu koy yéebaane Gambien lañ naa leen jox benn story benn jigéen musta may call mu jox ma information mu ne ma mi Essa Bokarr si tuddal suma tur faalewu ba na ma Yaya Jammeh rey mané ko yow rek lay tudda sa tur yow dina la tudda programme bi jot ma def suma programme lim buga yeb ma wax ko afta nak mu ne ma waaye dégguma nga dudda suma tour ma ko ana sa dom yi mu ne ma ñu ngi nii tëdd ëllëg school la mané ne ko ñooñu la xelaat muy joy ne ma jërëjëf si ma ko yow da nga émotionnaloon waaye way yang doon def lu ba man duma duma suma até émotion xel ma lor ki émotionnal kooku méttit moo ko éeg ba mandiloo ko mm. faaleetul dee ak dunda mm. loolu Gambien yi ñi ci biir tam nañ xam ne man bokk naa si ñun daan gën a dëkk te wecceeku wecceeku moo tax su ma nit waxee loolu dama dee ree man Essa Bokarr Sy Bokarr si mooy suma hero xadi ba mooy suma advisor ak Bokarr Sy ma rus nit day weddiwu ko waaye ma ragal nit non loolu yaakaaruma ko parce que soo toxalee ragal yàlla dufal fa def fa ragal nit rek mu dooleel nit kooku ba nga defee ne sax soo moytuwul nga defee ne moo yàlla yàlla moo mel noonu waaye bés boo wonee nit ne na du yow yàlla la xam nga dafa am benn aaya ngeen baal ma àqare parce que suñ société bi tam nañ leen di xëccaat fa ñuy dooree ñu bari si suñ waarekat itam dafa am ci mbir mi fuñ fa am da ngay gis rek kenn naaw rek naan la yàllaa fi teg diw ñu kóotalagul allahuma malika al mulki tuutil mulka man tasa wa tanziul mulka man tasa wa tu izu man tasa wa tu zillu man tasa bi yadi xam nga ñu indi la ko teg understanduñ foofu parce que yàlla joxe na lu baax lu tedd lu rafet mm-hmm. waaye dafa wëlbateku tam mu ne moom xisaab amul ci moom waaye nag suñ maam alaji malik si ñun ñëpp suñ maam la parce que jikko moo ko booleeg nit du santa mu ne dama ko daan wax si vidéo yi te duñ ko duñ ko ba duñ ko beesalaat parce que mm. loolu dafay bees waxtu bu ne mu ne yàlla ci coobare la nekk foofu du fa bokk ak nit mu teg ñu si sarta foofu nit dina fa bokk ak sa morom bu boobaa nag foofa lañ am right nag criticize leader parce que leader bu bugg a bokk ak yàlla coobare rek yàlla won la boppam. waaw loolu moom feeñ na sax de loolu moom ñëpp gis nañ soo fu mu ne nii ku fi toog ak ku fi toogoo dem ba ku fee toog ëllëg nag. Mhm. fàttalekul alxaji Malick si te waxi waliyu la ñoo ñooñu yàlla lañ gis ak yonento yàlla rasul sallallahu alayhi mu ne yàlla ci coobare lay attee ni coobare la nekk moom. Mhm. xam nga coobare moom. kenn mënu fay nekk yàlla rekk lii moo ma neex lii lay def mënuloo ci dara boo gisee sa bopp yow daal yàlla nag mu ñooy attee ñun sarta mhm. si sarta boobu noonu nag jaam yi nga xam ne yenn waaraatekat yi li leen di réeral nañ dellu gannaaw xam ne sarta booba nag fala nit ñi bokk njiit ba nit la kañ jiite nit la njiti malaika munuta am ci aduna parce que malaika bugut khalis malaika du dem commission of inquiry malaika du corrupt wa njiti nit nit la kon nak dañu jël quick break ñu del ci waat inshallah allah alhamdulillah dinding ini da nyando dinding la wani da nyando jali ba tell them ngala moyin unicef waaye bala maa dem fen sax te umpulewel nañu ñun ñëpp almaa bi tey la Teachers Day kon nag ñu ne jaajëfati teachers yi parce que soo gisee ma toog fii tey oo mu am kenn wala ñaar xam Sheriff Gomez ci réew mi it teacher taxoon muy noonu it di Charles muy noonu di Lance di loolu di almaa bi kon nag ñu ne Teachers Day gàcce gaalama yéen teachers yi dëgg la challenge yi bëri na jafe-jafe yi bëri na waaye toujours rek yéen fa ak si seen dóol ak si seen euh, e, e, e, ñàkk a ñàkk a faale bu ñu leen faale wala ñàkk a cëral bu ñu leen cëral toujours rek bu leen fàtte mukk ne kay romba ne la ah kële suma tëcc la nga gis ne mu ngi dawal benn bu baax loolu rek day sedd na xol jërë ngeen jëf yéen ticca yi ñu ñu ne ñu sóoraale ci loolu te itam umpale ñu ne Nobel Peace Prize génne na tey ñaar yu gi gën a am solo mooy ne euh, ndaw soosu Yassiri euh, euh, ndaw soosu nga xam ne dañ ko ISIS dañ ko dugal ci mbir mbir réeb nañ ko ñaawteef bu nekk def nañ ko ko muy jigéen kenn ci yooyu la beneen ki nga xam ne doomi Afrique la ca Congo docteur ba nga xam ne moom problème ba nekk kongo yëpp xale yi ñoo daanu seen kaw jigéen yi ñoo daanu seen kaw yëpp moom Pastef la ko defoon toujours rek kum ci dégga dina dem jëli la indi la ci lopitaan faj la du saa génn faj la ci gaañu bi nga faj gaañu rek waaye faj la emotional kon nag baax na ñu teewlu ci ñoom ne leen jaajëf ci ndam eh, eh, ngañmaa yi ñu am ni du woon luñ séntu sax xeex moo leen jógaloon rek ni lii luñ war a dàq ñu sumba si mm-hmm. eh, Charles bañoo tëj tenk nañ fi yu bari surtout ci mbiri jikko <coughs> ak réew mi fi mu toll. Mm-hmm. ak ko mbiri communication yii nii yëpp lu am solo la luñ ci jàngat ci ci ci five years yi la mm-hmm. ah, parce que yu bare ngay génn loolu laa doon wax almaam yi toujours euh, sànqa mbiri Semlex génne na fi mbiri oil génne na fi yii nii yëpp soo gisee mu am jafe-jafe am problème ñàkk communication ci cër euh, lu ci am doole la yii nii rek luñ war a woytu la mm-hmm. et ça na ko fi mbiri capacité ak government government nag mënut a ñàkk capacité man dama dee wax toujours parce que di machinery of government is so reinforced bi nga xam ne mistake du ko am nit kay mooy ñëw dugg ci government commit mistake am waaye government machinery du make mistake because foundation bi ñu ko lalal dafa nekk foundation boo xam ne dafa daxa mistake parce que da nga am checks and balances governance mechanism everything is in place so bu juumteemee rek nit ka moo juum nit ka moo tarxiis nit ka moo def lu mu warut def mooy questionner màndu et ça kon naka nga ko jàngatee et ñu ñëwaat ci topic bi naka leen jàngatee fi ñu nekkaat damay junja na ko fi ca lañ nekkoon ndax ci loolu lañ dugaat nii ndax ñu ngee make mistake ndax ci leneen lañ nekk waaw boole ci laajte rek waaw diaspora gis ngeen seen bopp ci nguuri Gambie bu bees gis ngeen seen bopp ci nguur gi ci ni ñoo doxalee ni ñoo gestoo yéen seen soxla yi ak euh, li ngeen am pour contribute loolu bëggoon naa koo def rek euh, comme ça laajte mhm. ndax yéen waa diaspora bi as a community gis ngeen seen bopp ci euh, doxalin bu bees parce que wax nga ci waxtaan fii ne nguur bi fi jógee ñu ne yéen wax rek ngeen nekkee woon foofu mais mu ngi meloon ni faalewuñ leen. am na ñu nekk ci nguur gi sax ñu ngi koy wax. Hmm. am na ñu nekk ci nguur gi ñu koy wax di naan ñoom nañ wax rek. am na tam ñu nekku ci nguur gi ñu koy wax. Hmm. ñoom nañ wax rek. Ah, xam nga ni ma ko daan waxee la gis nga eh, looloo tax ñuy wax ci daara ji comme fii. <laughs> ni naa ne tarbiyu jikko bi ñoy wax ni mhm. xam nga jikko dañ koy tagat waye rap dañ koy wulli dañ doon wax sank dogo dogo xam nga nit su fekke da ngay woyo dara nang ko nuru lolu dafa bari suñu society bi mhm. lu way di woyo dang ko nuru mhm parce que yitam nama ko daan waxe la rek li du mag du du tay la ko soga wax bay fal bi lu wax dafa yore leket yore et muné ku jëf jël sëñ bi ku jëful jël tooñ nga yalla tooñ nga askan waaw tooñ nga sa waru la jël te jëfu la loolu mun di don la nag so jëfut bul jël da nga wara a jël soo te li ngay jëf na baax parce que wana ko si ben programme mané xelat bu bax moy jur jef ju bax xelat bu bon moy jur jef ju bon te xéto danaka ñun ñoko indi ci aada rek ci doxalini aduna way yalla xéet yam fi tek ku ne xam na leen ñaar la fi té ñoy ag al akhirah yeneen xeeti yëpp duñ fa àgg jikko bu bon ak jikko bu baax wolof yi ñu ne jikkoog borom ba ca pax ma looy àndal barzak nag nga war a eew mooy sa caabi jikko bu bon mooy ubbi safara jikko bu baax mooy ubbi aljanna mhm. léegi nag wax na nañ wax ci jikko yi soo dinga gis ne li gën a metti nag mooy Issa Bokar si yaakaar ne man maa yore garab yi jikko yi te fekk Issa ci boppam jikkoom bi ci boppam feebar la xam nga loolu lu garaaw la dama ko daan wax de mane ku am feebar boo xam ne dégga moo la war a faj nga bañ a naan dégga yow nga naan nar xam nga dañooy rafetal wax bi si Ahmad mm-hmm. Bamba Xadimu Rasul noonu la ko daan waxee nar mooy lu du dëgg mm-hmm. nga muuroo leer làmp bi su si gunóor duggee léegi nga xamee gunóor gi parce que soo muuroo leer te yow danga naan nar lu du dëgg mm-hmm. ñuulaay boobu dafay teel a feeñ waaw mel ni white rek exact soo di nga gis ne nit ki da ngay woyoo li ngay woyoo danga koy nuru soo dee njiit woo soo dee kin jiite te dañ wara bayyi ben jiko njit yeek yep yépp lay wax ak suma bop ku la ngagnati rek nga ne ñi buguñ ma mbir mi du ku la buga, ak ku la bañ ngir mi moy ki la naw ak ki la cëral ci sa màndute ak sa déggu ak sa jup lolu rek la parce que nit da nga wara moytu bañ la xépp la waye nak war ngay muna nangu bañ la waye duma la yap xam nga bagn la muna bagn Mr Putin mom waye fuñ tes ci xam-xam ci mandu ci njub mhm. yep duma fekk mu mu delu ci gannaaw mu lompon ci dedet kon bu boba loolu dañ ko wara moytu waye nak su fekkee ah, njit yo don nga njit la ngay lijjanti yep moy Ki bugut ma gis nga ñi la bañ fofa lañ lay jaar yakala parce que xam nañ lan mo la mëna a gélémal yow da ngay wër kula buga kula buga ci lan parce que man dafa am buma ñaan buma ma ñaan mané mbollem kuma buga tek na yalla suma digante ak yow mbollem Tek bañ tek na yalla suma digante yow te kuma buga yaakaruma la kuma bañit ragaluma la xam nga lutax makoy wax su di man kati cocaine la almaami di kati cocaine bugun ma bugana ma waaye bugana ma ci lo xamne yalla yàlla kon buga buga bobu man bugguma ko Lelek am nga nek njit nga moy nga yak nga dem nit jay la koku mo ngi lay jay ci luy merlo yalla ñoñu ñoy sa ku am feebari diabetes nga ne yow ki lay jox sukur mo la buga billahi di nga de wa lolou mom lolou mom ndax sama pala wa ambassadeur euh legui buga na rek pour laajte mhm. ndax yow sa euh karange bokon na ci waye sa tour ci lim gëna fess gambia fi moy ne euh, diplomate nga mhm. euh, jang nga français euh amna yenen lakay yo de làkk-làkki gambia Euh, bugg a laaj rek ak yéen euh, Gambia diplomatie xam nga ñu ngi jóge ci euh, jamono joo xam ne dafa mel ni àddina bi yëpp ñoo ñu siboon di ñu tege woon boor mel ni réew moo xam ne ñëpp a puupu hmm. léegi suñ diplomatie hmm. yow nak nga foog noonu la war a demee pour delloowaat Gambia ci daraja bi mu nekkoon ci mahama bi mu nekkoon ci Afrique ak ci àddina si waaw suñ diplomatie Mr tal ngeen baal ma àq nag naisi biru, nay sibiru xam bana lu tax diplomate yow bana bana bu sol suit nga sales person bu sol suit nga China am nañ xaalis way li len indil xaalis moy jaay China be China jar muna jël la defar di ko jaay ci biti jaayit sen mun mun ci yeneen réew ñu ñew di leen defaral lañ soxla tay so démé ci international conference center bi santa yalla engineer china ngi ni engineer gambia na ko ñun suñu ibrahima koli ak ñom abdou karim cham abdou karim cham dafa ka china chinese comme chinese du mm. soldar gi fani euh ñi nga xamne ñew nañ euh toki li ma laaj dinaa ci boole loolu su ma su ma walli cër ci kaaraange man balaa may ñëw fii ñu bari xëj na dinay surprise suñ ko déggee man jegewuma sax journalisme walla jege tele wala buggoon a dimbali suma boppa bi nga doon def introduction bi lu ma neex nga wax mhm. nga ne Essa di xeexal boppam mhm. yow ku mun a wax dëgg la loolu daf ma neex loolu la ku nekk war a def si sa boppa bi xeexalu la almaami taal xéxalu la Mr Putin xéxalu la Mr Gisa sa bop ngay xéxal so lolu soko setlo ci bir ami bi amna ñuy laka turkis lolu yeb soko dajalé nak gis nga diplomatie Gambia ci bopam diplomatie Africa way bu Gambia nañ wat fenn ne Fake diplomat bi gisé wut bana bana. Enu enukati bitiki mbaga waaye yaangi sol sud dañ lay yoni na nga jaay la bax ci Gambia ci wàllu li fi nekk ci suuf si walla liy meññ ak wala lu ñuy mun a defar nit ci biti rek mm-hmm. yaa ngi lompoñ ci nekk diplomate waaw waaye Essa man dama foog ne nag diplomate yi nga xam ne génne nañ ci réew mi yëpp ci loolu lañ nekk dama foog ne kay na fi am problème mooy instead of ngay jaay mbiri mbiri réew mi ak réew mi ngay jaay turi nit muy président la parce que da nga ne koku mo la employ koku nga koku nga ligel ñaar yi nak bu amé soutenté rek problème am dama believe ne nak xajna li almaami di junñe nonu muy suñu diplomatie fim dem xajna lolo ko yóbbu fofu mom moy li may tontu parce que dégguloo mané la né dafa si biir xam nga man suma wax bi soko ko duma man wax parce que dama ne da nga war sa boppa bana bana salesperson marketing officer bu sol sut di ya. jaay sa rew, di jaay luy meñ ci sa rew, di jaay sa mani ni rew. Mhm. waxuma di jaay njiti rew. Dedet. man amon na ma jola suma case, man suma case, du ma tudd ay tour way bi ma Washington dama nekké ambassadeur amna ko xamné fen bañ na serne Tijaan Massaane Cissé mo ngi dunda fekkee na meeting ba amna mhm. ko ma nuyu ci ñu ngi maa wax affaire yi ne dañoo am meeting yi APRC ma génnee suma appointment letter teg ma ne ko man day suma letter bi ambassador of the Republic of the Gambia moo fi nekk waaye du ambassador of APRC kooku mer te kooku ki doon mer li ma doon wax ci wàlli nax njiit gënut may xam Yaya Jammeh maamoo ma bokkoon nekk gendarmerie waaye kooku ba meree loolu law di law di law mu multiply ana yaaya mhm. ana isa mhm. man de su may advice njiit bu mun di doon mhm. muy Adama Barrow ak keneen ku mun di doon nanga nga moytu ki lay jaay waaw na nga moytu ki lay jaay na nga na nga na naw kii jaay réew mi loolu waaw déedéet man kay waaw ok waaw jëkkër dafa war a am stratégie du lu nekk lañ mun a jaay baana baana jaay boobu nañ xam liñ mun a jaay ñu em ci loolu wax nga ko mooy koom-koom bi la muy tourisme bi la muy nañ xam nañ focus ci loolu am stratégie fu mu fu ñu bugg a dem ak moom number two tasaaru suñ tasaare suñ boppa ba mënatuñoo am effect amul njëriñ ressources yi ñu am dafa limité tey maa ngi xam ay embassy yoo xam ne high commissioner dafa dawal motoom dem ba ci meeting génn bugg a taal moto bi paan ñuy jënd ay moto secondaire yeneen embassy pour suñuy ambassadeur we are get we are spreading ourselves all over the place. Mm-hmm. we are reducing our impact and our effectiveness. nañ focus ci li nga xam ne moo am njëriñ pour dëgg ñu restructure ñu develop clear strategy lan lañ bugg a achieve out of our diplomatic post. ñu focus ci a may foofu tuuti lu important la. <laughs> laa bëggoon a daane sax thank you very much. mooy mapping and zoning gis nga third world country bu mel ni Gambia fu fekkee dëgg la ñoo waxante laa wax ñun dangay dégg ñu ne scaling down embassies yi sometimes mun naa affect employment weddiwuma loolu waaye loolu su ko politicien waxee I can accept mm-hmm. waaye yow mi technocrate yaa war a dimbale politicien bi how to find a solution te cut down employment bi du am mhm. léegoo lee nga gis embassy gisuloo yi ak Amérique léegoo léeg nga dégg ñu ne expel nañ 200 mm. su fekkee ne sax mun nga am benn boo xam ne pari la nga am ten mooy gën a neex a manage dan li moo wax because dafa mel ni military operation nga diplomatie ak military Mao Zedong mu ne diplomacy mooy continuity of living military operation waxum mm. I cannot say the exact words waaye loolu la diplomacy moo military moo tax ku ci nekk léeg-léeg sax ñu lay taxal ci intelligence parce que strategy is the same military soo jëlee the most effective army nga jël ko tey mel ni nga am one thousand men yoo xam ne they are very good at fighting nga ne leen na ngeen spread out na ngeen attaque Mali attaque Gambia attaque Guinée Bissau attaque loolu duñ ko mun dafa mel ni nga jël euh, barigo nga def si butéeli vimto sotti si fukki biñuwaar am nga lu xonqa waaye amula vimto waaw kon yow daal da nga believe ne daal liñ war a def sax statut bi ñu war a def mooy ñu kóoteel ñu stratégique ni ñoo déployé. Eh, correct suñ suñu embassy. waaw su ko fi nga gën a am man waaw déedéet man kay dama bëggoon a ñëw parce que time mu ñoo jàmbu si. dama de non non non waaw maa ngi ñëw moo tax ma la doon joxoñ léegi dama bugg rek ñu wër ñu ñu seetaat yi nga xam ne mooy currency si réew mi léegi. ñu ñu ñu tënkee foofu daaneele foofu bala ñoo joxaat suñ gan gi. yi nañ fi yu bari mbiri Semlex génne na fi. mbiri Oyel génne na fi. security sector reform start na constitutional reform commission bi mu ngay jël jéggu yu mag TRRC bi ñu ngi ci koom fi mu nekk nii daanaka foog naa weer bii lañ wax ne sax si la door seen liggéey yii nii yëpp ay xew-xew la ay jàmbat la yii nii yëpp ay issue la fi mu nekk nii lu ngeen ci jàngat lu ngeen cee tënkee ak fu naa a ndax ja time jàmm nañu fi mu nekk almaa bi waaw Ah, jërëjëf ah, honorable ah, waxtaan bi moom comme daara ji fii yéene dañoo bugg a wax ne wax ji nii la war a demee mhm. wala na lee la war a demee mhm. yi nga wax nii yëpp am na solo mhm. te d'accord naa ne du ñàkk dinañ si dellu ci waat parce que daara ji moom ajuma ju nekk dañoo continuer wax nañ sax tey pour isi jigéen mu fellu la nga xam ne waxtaan bi dina gën a mun a isi dimension yu bari Euh, man affaire yi euh, xew-xew yi nii ci réew mi comme TRRC bi la comme euh, diw bi CRRC CRC bi yii yëpp yu am solo la te mu ngi mel ni commencé nañ ak li ñoo wax expectation ñu bari ñu ngi si pare mhm. pour participer ndax soo nekkee doomi réew te jamono tamit soo ko fekkee nga bokka ci yëngu ci def ci lu baax mhm. Euh, ñun ñu ngi leen a ñaanal pour euh, liggéey bi euh, sumba ni ñu jaarale ko ci yoon waaye man li ma bëggoon a tëjee suma waxtaan rek mhm, mhm. pour tey mhm. mooy ambassadeur Essa Boucar si mu fi nekka pour ñu seet ñun ñi nekkee Afrique ndax suñ diplomatie warut a gën a panafricaine warut a gën a ici dem ak ñëw bi suñ diggante ba nga xam ne Afrique dafa gën a dem ci kanam ndax wax na fi affaire yi euh, Alhaji Malick Sy euh, euh, wax na affaire yi Nelson Mandela mm-hmm. wax na affaire yi Cabral wax na affaire yi Patrice Lumumba mm-hmm. baax na tamit ñu gis àddina si nit ñoo xoolee bu yàggul rek Afrique yëpp dem nañ China ñu ne Africa China Summit Afrique nag du benn réew so baax na man loolu taxoon sax suma laajte bi ma bugg a koo dooree ci loolu ah, baax na rek pour suñoo waxtaan mhm. ñu understand ne ah, réalité bi nekk fii ñun mun nañ koo contrôle mun nañ koo change mhm. ah, so ma daaneel foofu rek gërëm ambassadeur si ci teewaayam ak wax yu rafet yi mu fi gaaral nii wax tamit waa réew mi rek nañ bokk xel yi nañ boole xel yi mhm. raxas bu ñi yaatal xol yi mhm. yéene wante jaama jërëjëf ndax suñu réew dem kanam jërëjëf almaami Lamine lan ngay tënkat lan ngay daanele waaw ñaari mbir rek eh, suñ dee wax ne na xol yi ñu fóot ko mhm. na ndox ma set ndox bañ koy fóotee waaw na ndox mi set mhm. su ndox mi setut kenn du ci fóot xol ñu jël benn exemple rek ñoom ayam gaaba jaxumpa ñooñu amoon nañ eh, relationship ak yeneen aadina yi. waaw ben jëloon nañ fi ay nit yóbbu leen Ghana. jàngal leen ñu ko fàttaliku ñu ko fàttaliku mm-hmm. groupe bi Gaba Joxum te ñooñu ñëpp ñu ne africans lañ. Mm-hmm. panafricanisme mu ngee dox dayut yooyu yëpp léegi mun naa am jël suñ nit ñi fii yóbbu leen Freetown yéen ñuy dem fële mm-hmm. ñu jàngi ñu jàngal leen. bon xool yee tëju footuñ ko. xool yee tëju ba tey la woon fa woon mu fa ba léegi. fa ndox ma daan taa saa yoo fa demee fekk fa teppa teppa yi su ma jógee ci loolu mhm. ma ñëw ci diaspora bi pour ñu leen day bàyyi xel tam eh, ñu bare ngi foofu bugga nañoo ñibbisi suñ laajtee njëgi kër ñaata lañu ñu naan la one million mhm. te government nañ bàyyi xel ne doomi réew mi am na ñu bugg a ñibbisi mhm. te am na ñoo xam ne sax retire nañ waaye ci jafe-jafe yiñ nekkoon pour ñëw amuñ kër jaral na leen ñu dee foofu yi nga xam ne ñu ngi ko démarqué ci réew mi ñu leen ci day xalaat seen forme si ñuy xam ne ñii mm-hmm. ñu ngi ci biti mm-hmm. ñii ñuy ñibbi si ëllëg yombalal fiil fiil forme si waaw mm-hmm. mu ngi fii ñu yëkkal leen seen añ na mën a ñëw añ jërëjëf la eh, Charles waaw na yi bari nañ man dama bëgg a dugg ci mbir li nga waxoon fii mu yëfi teachers yi ak yëfi strike bi ah, diaspora bi xam nañ fi ñu taxaw nañ leen gën a jàppa nañ leen ubbil nañ leen di fàttali fàttali ci yëf yi waaye dama gëm ne society dëkka dafa ñëw down to the family unit and ultimately to the citizen the individual mm-hmm. te Gambia is as important as the lowest or lowliest that we characterize any one of us mm-hmm. so ñun ñëpp nañ bàyyi xel ci loolu nit bu nekk nit ku nekk ci dëkk mm-hmm. dafa am right dafa am rôle dafa am responsibilities teachers si pour nga jóg ne damaa gerew damaa strike lu diis la lu diis la war a nekk ci kum mun di nekk xëy na ñun tey lokki nañ kenn du fi teacher waaye di réalité mooy ne dëkka dafa war a am pour citizenry bi am the right pour jog taxaw ne we are not happy o jóg taxaw ne dañ foog ne suñ situation war naa war a méngoog leneen mécanisme war nañ war a mun a taxaw agité it is a part of democracy it is a part of the expression of the citizenry We should never try to quell or subvert that. Mm -hmm. We must promote it. Let it be done progressively. Let it be done according to laws, Almami would like to say. Mm-hmm. There are laws. Let's make the laws functional. So the teachers yi dinañ mun a taxaw suñu waree taxaw ñoom i vote ne vote. dañ war lii lan lañ bugg a def su ñëpp taxawee vote ne dañ war strike. Then war a am the right to strike. the government representing all of us have the right to listen. and make sure they should, I mean, genuine issues that need to be dealt with. Fulal they are wow. addressed and dealt with within the limits and resources of the country. Oh. Why dafa important bu ñu toon ah dace bëgguñu strike bëgguñu strike dafa yaay image ba no citizen strife citizen advocacy mm-hmm. citizen struggles mooy yóbbu dëkk kanam mooy yóbbu dëkk kanam te lii du tijaas rek du tijaas rek in every area waxuma ne ku jóg rek ku ku boppam am métti wala bu ñu am lifin sax ma ne xaaral waaye ku war a jóg ne dama strike te yaa ngi jël risque or run the risk of nga ñàkk sa paie mm-hmm. because ku ku ku dem strike liggéeyu loo duñ la fay waaw looy dundalee sa njaboot lu diis la du lu woyof ko fay daal nañ ñu toog ñu def liñ ci war a parce que ka jóg diisoog ay ay mbokkaam ay ay ay ay ay nawleem ba jóg ne dafaa jóg ñaxtu. Mhm. kooku am na lu ko soxla. definitely waaye nag nga teg ko ci yoon comme li nga doon wax. fulal sa boppa mhm. am fayda ci sa boppa ñëw taxaw nekk man mi nga xam ne yaa ma joxoon lii kat coono ci biir laa nga dooree ko yi ci jiw process. Mhm. because loolu dafa am process. dafa am foo war a dooree. Uh-huh. be nga xam ne def nga yi nga war a def yëpp dara taxawul. nga indi nag ne ah kon nag ñu ñëw wanal wane réew mi yëpp ne ñun ci problème bii leen nekk. buñ ko defee nii rek problème du am su ko defee government ba ngaa wax noonu ñoom itam ak seen sécurité ñoom ne kii kat lii cëram la lii xam la nañ seet naka lañ ko ko joxee kaaraange mu jógee fam bugg a jógee dem ba fam bugg a dem wax fa la mu bugg a wax nga escortaat ko mu ñibbi fam war a ñibbi xam nga kon problème du am eesa naka nga tëjee naka nga daaneel waaw yi nga wax ci current affaire si xew-xew yi let's say ministry of justice fan yi ñoom lañ dégg. Mhm. ci wàlli tontu wante ay journaliste man suma gis-gis ca loola gis nga nit suñ la tabalee maxaama xamal ne doonatu la nit mhm. yow kër nga sooy wax waxi kër ak waxi réew ni ma ko daan waxe la mhm. réew du géew réew du géew réew du ndab kuñ géewalati rek nga yaakaar ne yaa daq a bëre ñu ngi géewal sa morom feneen ci gox ba ca biir réew ma waaw bu boobaa la borom war a tontu ci loola amoon nañ fi alimenta mhm. amoon nañ fi kanaji mhm. yooyu soo leen jëlee référence nga wone ne fii de jaaroon nañ feeg ñooña lañu buggoon a moytu mu di yëfi simlex bi la waaw xam na xam na bëggoon a moytu si loola mooy lañ fi amone mu taxone beñu dante daan nguur ga ñuy fay xali ko bari waxtaan bi nga explainal nit ñi parce que Simlex du meuna don Simlex su ñepp toge téye loxo jënduñ ID card man dama ko daan wax ni man len utam visa si embassy méthodologie mu nga fa bu yomb légui tay embassy yi dem di nok bunti nit ñi leen jox visa su nit ñi mënon na téye bop rek ne bu kenn uut visa benn at embassy yëpp wër kër yi di visa soo nit lu am doole la. soo di nga gis ne tontu wante ak nit ñi. Mm. du loola. gindandikoo nit ñi fa la mbir mi nekk suñ la laajee ne lii dafa jaar yoon lii jaarut yoon noo ko defee baaxut. Mm. soo déggee ñu la koy laaj dañ la dénk lu ñëpp a moom. soo yow la nga moom. la nga moom. Mm-hmm. moo tax ba ma dooree wax ji ma ne. am na jëf juy indi weñ mhm. flies waaw af da jëm juy indi yomba waaw dem àll dafa xesew weñ mooy ñëw soo laalee liskoloñ dafa xeeñ yomba mooy ñëw yomba mooy constructive critique mhm. te foog parewuloo absorb constructive criticism mhm. te li may advise some of the government officials su ñoo wax ci microphone yi ci télévision yi ci radio yi nañu moytu words like nonsense waaw who do you think you are do I care nañ moytu words yooyu xam nga lu tax yooyu dafa passé sama du ci biir Gambia de ci biti ñi gada intel ñi represent government mm-hmm. ñi bind report mm-hmm. yooyu lañ dee gis as blinking position si map bi ne oh, ah, ñii kat problème fa kii suñ ko mayee chance mun naa doon kuy noot noonu lañ koy àttee ñoom mhm. fekk yow du loola te Gambie ñu ngi tollu stage boo xam ne Millennium Challenge account dañ ko soxla mhm. leneen ak leneen mhm. leneen dañ ko soxla waxin yooye nag la gars yi di dajale jox la walla aye la jërëjëf jërëjëf Gomes ah kon nag dara jàngi nii wax ji rafet na waxtaan bi rafet na lii lañ ko dooree woon lii leen ci séntu woon itam toog waxtaan suñ biir laayante biir loolu mooy daara ji kon nag ñu jaajëfaat suñ gan gi ni ko am almaa bi di ba daxentale ambassadeur Essa Bokarr Sy kon nañu ne jërëjëf ñu joxe promise ne rek incha allah next Friday ñu tasewaat fii gën a waxtaanaat kon jërë ngeen jëf